salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu seetaan ci Lutte TV point com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey am mbégte ak contentement bu baax a baax dajale fi ñi nga xamante ne ñoom ñooy association des jeunes lutteurs noonu la ñu tuddee seen bopp même si am nañ ci ay éléments yoo xamante ne mun nañ wax ni buñ dalee bëri yàgg na lool ku ci mel ni Onde le Fou nekk un très grand champion nekk sama xarit chaque jour ngeen ñuy gis ci live yi maag moom du yomb dañuy werante bu dugg boîte vocale <laughs> ñu ngi dajale fii aussi ñeneen ñaari champion yoo xamante ne ku ne xam na kuy mobile 2 nekk président ci association bi nga xamante ne mooy association des jeunes lutteurs waaye aussi ñu ngi dalal Kona Kona nga xamante ne macha allah di rakk ci capitaine PK nekk mbër aussi def lu ne ci làmb ñu leen di bàyyi ñu nuyoo xanaa dañuy njëkkee ci président mobile de nga xamante ne moom yaakaar naa ni moom mooy euh, yor kàddu bi d'abord mobile maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum Beuz. Hmm? nuyu Sénégal yëpp ah, di nuyu abonné yu Lutte TV di nuyu waa station jeune lutteur ah ndax euh, jiite mbooloo yombul. ñu doyloo ñu lu ñu def ñu ànd ci di nuyu sama frère Kona bi ma àndal di nuyu Onde le Fou nga xam ne mooy la initiateur mooy ki xalaat lépp ñu ngi koy fay ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit suñu bureau yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen nuyu bureau association jeune leader bi yëpp ku ci mel ne Gakou 2 ku ci mel ne Papa Boy Djiné Agogo ah Mori Cargo ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp Alaaji Sey ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn képp ku nekk ci bureau bi rek ñu ngi leen nuyu képp ku nekk ci association bi ñu ngi leen nuyu vraiment di rafetlu tamit lii Mm-hmm. waaw di ko rafetlu macha allah ndax demoon neen am sama copain bi ma doon sànni xeer ne lu TV da leen boycotté quoi Onde. salaamaaleykum Sénégal ah. waaw man la Onde Lofou maa ngi nuyu ñi toog ci plateau bi ñëpp ba sama xarit suma doomu ndey comme ni mu ko waxee. waaw euh, di nuyu di jaarale nuyoo bi ci suñu loxo président mobile. waaw di nuyu Kona ak ñu nekk ci bureau bi ñëpp ku lem da nga wala doo matal mais daa am benn affaire boo xam ne nii nag dafa dal sama kaw. dama amul lim national mais jarul may kenn nit rek laay tudd tey muy Moussa Yandé Moussa yànde suma nit sama xarit mu nekk ci ay jafe-jafe nekk ci tolof-tolof maa ngi koy wax Moussa muñal waaw nattu yàgg na ci jaam lu kii yàgg naa dal ci ndaw yoonu ndaw moom foog mu am gàllankoor di masawu yaayam mère Yandé waaw di ko ñaanal tamit fi mu nekk yàlla jëlee ko fa ci jàmm quoi bës. salaamaaleykum euh, waa Sénégal salaamaaleykum internet Lutte TV yëpp. di nuyu sunu grand buzz di rafetlu aussi invitation bi di nuyu caméraman bi di nuyu ñëpp rek suñu bureau bi yëpp gaa yëpp ñi ma di mobile lim ak ñi mu limul yëpp ku lim doom matal ñoom Mathia Pereira ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ziar di leen bëggee xam nga di wax ni yàlla bu ñu fi wax lu ñuy xeebee asalaamaaleykum. macha allah gars yi nag lu waral waxtaan bi tey euh, moom mooy association des jeunes lutteurs dafa amal conférence de presse très récemment ñu gis fa média yu bëri euh, Lutte TV teewu fa xam ngeen rek liggéey bi bu bëree yenn saa ak euh, manque de coordination bi du ñàkk yenn saa ñu rate ay événement mais tey looloo tax ñu dajale leen fii ñi nga xamante ne ñoom ñooy les principale personne yi jëloon kàddu foofu muy mobile onde le fou ak Kona tey pour waxtaan ak ñoom waxtaan bi nag dafay nekk waxtaan boo xamante ne ci jafe-jafe làmb ak ñoom yan solution yi nga xamante ne ñoom am nañ ko ci loolu lañ leen bëgg a laaj lu ci njëkk moom mooy euh, Kona comme moom moo téye micro bi moom moo mujjee wax dama koy laaj Kona lan moo waral tey seen association bi nga xamante ne moom ngeen taxawal association des jeunes lutteurs ngeen taxawal ko parce que yéen a ngi jóge ci benn association boo xamante ne mu ngi fi woon ngeen nengo nekkoon ci ay membres actif ñu déggoon leen ci bu baax a baax tey ngeen ñëw taxawal association des jeunes lutteurs bëgg neen xam lu waral loolu brièvement. waaw euh, ñu ngi nuyuwaat ñëpp ñuy rafetlu ci question bi. donc je pense que li waral ñu taxawal association rek mooy que ni euh, ku nekk da ngay ñaan yàlla soo nekkee sa kër bàyyi sax ba mën nga créer sa këru bopp. mais nag su fekkoon ni sax xëy na peut-être fa ñu nekkoon gis nañ fa suñu bopp tam pour diir vrai peut-être lii du am tante nañ nag ay côté yu nekk pour. jàmm am pour ñu gis suñu bopp pour pour ot ki nga xam ne moo ñu jiite wala ñi ñu jiite bàyyi ñu xel ba lii du am mais malheureusement tenté nañ koy côté yi ñu tenté yëpp réussirul te encore une fois ñu ngi am ay problème muy persister ci làmb ñu gis ni gisuñu benn taxawaay bu war wala tamit même bu dee taxawaay bi am na respect bi nga xam ne nii war nañ ko jox làmb jox ko mbër yi dafa des donc ñu ne pour te nag ñun dañoo dem ba mu banal si ñun parce que à force de voir toujours le mal ça devient banal dem nañ ba injustice yu ñuy teg xam nga bagage ni nu muy demee si làmb ay manque de professionalisme bi am si làmb dafa dem ba dafa banaal si ñun donc nag ñu ne pourquoi pas nañu taxaw parce que Sénégal tamit ñi fi am dara yëpp dañoo xeex ba am ko te xeex bi nekkul génn di doore wala di rayante di dara mais wax ni man mii kat lii ay ambition lañ am te ay autorité lañ ay ay exemple lañ ay citoyen lañ kon war nañ mën a wax suñu amertume autorité bi looloo ko fi teg ñu wax ko suñuy jàmbat te defe nañ li tax ñu mën ko ko wax mooy dafa am réew mi nu muy doxee war nañu organiser wu def une association boo xamante ni ñun ñi nga xam ne ñoo bokk gis-gis bokk ay problème ñu daje fa daal di nag taxaw wax suñu raada bol opinion bi su ko defee ñu wut ci ay saafara loolu rek. injustice yooyu ngay wax injustice yooyu fu mu jógee. waa injustice yi dafa bëri parce que yow injustice yi am si làmb yow yaa ngi koy gis man maa ngi koy gis c'est visible à lay nuy parce que tey li xew barki Demba Ndiaye rek wan ni làmb y a amul amul leader boo xamante ni comme son nom l'indique parce que nañ waxante dëgg li xew barki démb rek si làmb ci monde làmb rek la mën a dal parce que gis naa ni manque de professionnalisme am na et aussi tamit autorité bu buñ naan digne de son aussi ñun manqué nañ ko parce que tey su fekkee ñun ay mbër lañ su ñu defee njombe wala naka sudul ñoonu ñu teg ñu ci yoon mais ñun ñu ñu privé ñu ne ñu def leen lépp li ngeen war a def yëpp pour ngeen am li ngeen war a am ñun ñu def li ñu war a def lépp ñi ñu war a teg ci conditions yi tax ñu mën a pratiquer suñu sport ñu gàllankoor ñu ci raison yoo xamante ñun ñi ñëpp xam nañu ci solution tamit yi tax ñu nga lii kat war na mën a dàkk war na mën a deñ donc loolu rek moo waral si kuréel bi xeexuñoo kenn mais nag suñu toogee ci plateau yi comme ñu mel ni yéen di ngeen ñu laaj lan moo leen jëlee fa ngeen ñu ñu toppee mais dañoo toppee ñi ñu topp taluñ ñu wala ñi ñu topp suñuy jafe-jafe nekkul seen i jafe-jafe wala gisuñu leen ni ñu leen war a gisee sentiruñ leen nu ñu leen war a sentiree te am na nooy waxee ak ñoom ñu yaakaar ni xëy na peut-être yow amoo droit wax ak ñoom donc nag du ko li ñu mën a def rek mooy ñu nit ñu xam ni ñun on est des responsables et suñuy destin aussi suñu loxo la nekk donc war nañ mën a def kuréel comme des citoyens wax suñu amertume ci yar ak pacifiquement te foofu lañ jëm lii nii di am si làmb bañuñu si ba wàcc si tali bi pacifiquement re daal di dénoncer li nga xam ne mooy injustice bi am si làmb xeexuñu ak kenn amuñu problème personnel ak kenn li ñu bëgg rek mooy làmb mu dundal les pratiquants maanaam ñun làmb ñun ñëpp xam nañu làmb nourriruñu te dañu war a fexe ba làmb mu dundal même bu mënul dundal à cent pour cent au moins à cinquante pour cent ñi ci nekk di ci gis seen bopp muy promoteur muy manager muy mbër muy yéen ñi tey jii mais malheureusement tey suñ ko assainirul tey ba mu njariñ bi ñëw tey jii yéen ñi ci investir yëpp ëllëg mun na yàqu te waruñu mujjee puso muy réer kon ñun loolu rek moom mooy suñu credo du xeex ak kenn du contre kenn Gris Bordeaux ci boppam wala kenn ku bokk ci association bi suñ ko bëggoon teg dañuy taxaw xeexal ko waaw. am na solo mobile looy sànni waa liñ ciy sànni avant tout mooy di jéggalu mais ñu ngi jaale suñu papa Mbaye Gueye di ko masawu làmb yëpp di ko jaale suñu papa Moustapha Gueye di ko wax ne ñu ngi koy nuyu ñu ngi fay waaj a ñëw jaale si ko vraiment di nuyu kuréel yi ëmbu làmb yëpp mais liñ ciy sànni du bëri mooy comme ni ko Kona waxee chaque jour dama koy wax mais boo koy wax amaana réew mi mun nañ la bañ a dégg ni nga koy waxee c'est-à-dire que ne ñun amuñu philosophie yu ne ñun comme lee daf nekk dañu ñëw teg lii pour mën a contre contre pour bu ñëwee di waxee ñuy wax wala lii wala laa mais jot boobu noonu ñu dem passé ko ci leneen jot boobu noonu ñu dem passé ko ci dini wala ci leneen wala ci leneen mais xëy na wuute gis-gis moo tax marchandise di teel a jar beneen bi ci topp mooy lamb association jeune lutteur moo ci mujjee juddu ñaata kuréelu association lañ am ci làmb lan moo tax gars yi taamuñu association jeune lutteur moo waruloon créer Gaston Mbengue li mu def ci làmb promoteur ko fi nii lan moo tax am nañu bootu ci ginnaam teewul dañoo dem xàll seeni kuréelu bopp mais parce que gas Gaston gis-gis lii mooy problème bi Ousmane Sonko ak Sall ñoo bokk lenn lu ñu bëgg mooy defar Sénégal mais bokkuñu ay gis-gis niñ ko bëgg a defaree moo waral mënuñoo ànd mais lii mooy suñu problème ak ñoom c'est juste dañoo nekk ak suñuy rakk dañoo nekk ak ñeneen nekk ay mbëri ndaw comme ñoom nekk ci làmb ji gis ni làmb di doxee ñu dem ba comprendre ne ah ok léegi man pour may génne sama mille man mobile jóge sama kër dem kër promoteur jox ko mu doon caution pour ma mun a bokk ci journée. ok lam bu dem ba léegi mbër day génn wax li nga xam ne mooy ne bu ñu ko tegee stade bi mbër jëriñu promoteur bi jëriñu ménageur jëriñu ñu ànd ree ñoo ko boycotté ko génnee ko lambu ne ko yow dootoo bëree. kon ah depuis kañ 2016 comme 2017 bëriwul lan moo ko yóbbee dafa génn ñëw fii li TV def déclaration am déclaration boobu tey moo sax indi Gris Bordeaux ci xeex bi mu nekk tey. mais pourtant ñun ñëpp ànd nañ comprendre ne Kona palmarès bu bon génneewu ko ci làmb ànd nañ comprendre ne Kona ñàkk mbooloo génnewu ko ci làmb mais xëy na benn booy nga fayeeku woo fi cent millions fayeeku woo fi dara taxaw naan yaay wax yow li nit ñi suul mu doon secret xaaral ñu tegee la nee buñ la tegee nee ba bëreetoo booy wax da ngay soof nit ñi li ngay soofee nit ñi mooy benn commentaire ngay am demal nga fexee bëre demal nga fexee bëre loolu mooy doon sa commentaire léegi politique bi loolu lay doon comme day génn di wax dëgg nañ ko wéer nee ci ruq bu bu gëjee léegi boo ko defee noonu mobile ne xaaral Kona fii la génnoon wax gars yi boycotté ko bareetul te maa noppi te lijjanti sama carrière léegi bu ko defee nag affaire dootul nekk xeex buy jëriñ nit ñi day nekk xeex problème mu individuel. Mm. mooy comme man bu ma waxee dañ may def ne Kona kon naa noppi man ma lijjanti sama bopp. Mm. maa ngi am lu ma yóbbu sama kër Kona moom na xool lu mu gérer wala mu génnaat def jéggalu. Mm. mais làmb warul doxee noonu. problème mu làmb ji jarul raay jarul wax jarul lii. mooy ñi mën ñi mënul tey def ñoo fi nekk. ñi def nag bañ ku leen yëpp arrière toog ci ginnaaw mais làmb bu ñu ko tegee fi ñu ko war a teg ñi war a nekk promoteur nekk promoteur ñi war a wax di wax ñi mel mobile ondu la foo di déglu parce que waruñoo wax. Mm. lii mooy doxal làmb te ñun ci di ci dox ci loolu lañ jóg di ci wax mais jóguñu hmm. pour contrecarrer kenn wala ñu jóg pour guerre kenn wala ñu jóg di def ay déclaration ci kaw kenn pour xeex ak moom amuñu jot boobu noonu am na solo je pense même qu'on est en te ci démocratie bu ñu nekk ku ci nekk war nga mën a am droit wax dëgg yàlla euh, ubbi am sa association war nañ mën a am ñaar ñett ñeent association mbër yi euh, léegi on le fu loo ci dolli rek le temps ñu ñëw ci côté question yi waaw li ma ciy dolli mooy gars yi moom bu ñu waxee ba pare man jarul woon sax may wax parce que yàlla baax na ba ay borom xel lañ ay nit ñu ambitieux lañ tamit quoi li ma ciy dolli mooy di wax site internet ñi fa ñëwoon di leen wax jërëjëf ñoom ñu fa ñëwoon ñëpp parce que mënoon nañoo wootee duñ leen fa gis ndax bëri na ci ñu ñu yaakaaroon ni dinañ ñëw te duñ ñëw benn ci muy Lutte TV yow mii dañ laa toppul moo tax ñu ñëw fi buñ la toppoon duñ fi ñëw ndax suñu association bi mu sosoo ba léegi amul benn yoon boo xam ne nii jël ngeen ñu ko ñu koy wax amuñu benn chance pour yéen mais bi ma waxee gars yi tamit dañ ni jarul topp parce que mbaam bu la weexee nga weex ko yaa ngi ñoom yéen a yem te ñun bëggu ñoo yem ak yéen est-ce comprendre nga bës ñun yow tuddoo bës TV tuddoo lii TV lit TV nga tudd ñun suñuy ñaxtu ak li ñu metti ci yow lañ ko war a jaarale ñun li ñu metti ci yéen la war a jaar mais bëri na télévision yoo xam ne dañ fa waroon a teg seen tànk teguñu fa seen tànk parce que considéré wuñ ñu bu ñoom Gris Bordeaux woote woon woowuñu leen ñu gis ci seen bopp est-ce que nga kon ñun ñi nga xam ne dañuy jug di xeex ñooñu cinq personnes lañ xaw ma six ñun huit mille lañ xaw ma sept mille kon ñun injustice bi ñuy dund mu metti ñu yéen da ngeen ñu cee war a jàppale bépp tele bu fa ñëwuloon defoo dëgg defoo yoon bépp site internet boo xam ne nii yëg nga ko ba pare ñëwoo li nga def du dëgg du yoon parce que man jël naa sama téléphone di woote woo naa ku ne mais ñi fa nekkoon tamit woo nga ma man non yow jarul ma lay woo parce que xam naa ne ma la tamit mën ngaa bañ ñëw dama doon xaar ba nga woo ma ma ñëw ma wan la ni man dama leen di tane parce que mobile président mobile woote na fii gars yi ñëwuñu est-ce que comprendre nga gars injustice nag foofu la njëkkee bu mataar ba woote woon yéen fay jiitu site internet yi fa ñëw joxuñu leen paas joxuñu leen dara parce que amuñu ko ñun wootewuñu xaalis musu ñoo dem ci autorité ni ko may ñu xaalis ñun dañuy dem ci autorité pour xeex respe ñun respect la ñuy xeex ñun soxlaawuñu xaalis bu ñu soxla woon xaalis dañuy raay gars yi ak di leen wax li tax ñu may ñu xaalis ñun dañoo bëgg ñu respecté ñu li njëriñ bi ñëw après ci suñu kanam suñu rakku mbër yi ak suñu doom yi ñu jëriñoo ko mais ñun pare nañ pour lépp luy dal ci kaw làmb pour mu defarul lu bon na dal suñu kaw ñun loolu lañ pare pour xeex. am na am na am na solo Onde le Fou mais peut-être leeral rek leeral rek tey lu TV fas yéene woon na ñëw foofu mais manque de coordination te loolu day am ci liggéey bu ne day am ci liggéey yoo xamante ne macha allah dañu am kon ñu bëri def nañ fi conférence de presse lu TV teewul Zarko xarit la suñu doomu ndey la def na conférence de presse lu guy gi am na benn conférence de presse bu mu amoon lu TV teewul loolu mun a ñàkk ci liggéey parce que liggéey munoo teew fépp liggéey bi bari na bari boo xamante ne mun naa waxal au nom tout toutes les presses tey du den leen xeeb ndax yéen wax dëgg yàlla euh, na ngeen nekk ay ñoo acteur ci làmb ji bu baax a baax yoo xam ne dañ leen di bàyyi xel donc duñ leen xeebal seen ay bés. loolu loolu nañ ci bàyyi xel man mun naa waxal loolu au nom de toute la presse mais man li may ci seen ay kaddu mooy tout le temps da ngeen di victimiser wu. muy victimiser wu mooy dañ ñuy xeex injustice ak yu mel noonu ond loolu tamit est-ce que jotul ngeen xoolaat seen bopp tamit ngeen ñëw teg ay jalon liggéey parce que Gris Bordeaux quoi qu'on puisse dire en tant que président des lutteurs du Sénégal am na ay jalon yu mu def du ñu ne son bilan et positif à cent pour cent du ñu wax loolu mais tey gis nañ lu musul am ci làmb mu am ci Gris Bordeaux nekk président des lutteurs du Sénégal naka la ko réussir mooy gis na Gris Bordeaux boole Balla Gaye boole Bombardier boole Modou Lô boole tey ku mel ni euh, Tapha boole Boy Niang ñoom ñëpp àndoon ñoom ci ay plateau télévision te loolu ñun dañ ko doon jooy yàgg ne VIP yi faaw ñu booloondoo pour xeexandoo tey intérêt làmb tey au moins loolu askanu Sénégal ñëpp d'accord nañ ci ñëpp kontaan nañ ci yéen tey yan jalon ngeen fas ne def itam à côté pour réussir li nga xamante ne moom la Gris Bordeaux réussir ci yenn espace ci yenn côté yi au lieu tout le temps muy nekk benn victimisation wala benn euh, confrontation seen diggante association Gris Bordeaux. waaw gis nga euh, question bi ma laaj man neex la parce que ñëpp dañoo yaakaar ni Gris Bordeaux lañu amal problème ñun dañ koy wax chaque jour Gris Bordeaux wala nit ñi ñoo jël problème bi def ko kooku ñun dañ ni ménager bi ci wàllu boppam. complice la ak promoteur bi promoteur bi complice la ak ménager bi xam nañ li ñuy daj mais ñoom duñ ko dénoncé. chaque jour nga dégg ko ci suñuy kàddu ñu koy wax chaque jour nga dégg ñu ni président écrit yi nga xam ne dañoo jiite ñun ñu jox leen suñu bopp ñoom jàppale ñu ci xeex bi te dañoo war a jug jàppale ñu ci chaque jour nga dégg ñu ni tey ministre des sports bi Matar Ba ñun yëg gisuñu suñu bopp ci moom chaque jour nga dégg ñu classe ko chaque jour nga dégg ñu classe mi kii yor président CNG bi. chaque jour nga dégg ñu ni ñun gisuñu suñu bopp ci moom daa mel ni dañ fay jëlee woon Alioune Sarr pour tegaat ko fi ñoom mais copier coller la wala Alioune sax gën ko Gris Bordeaux non seulement que lépp mënul bon ci àdduna mënoo def lépp nekk négatif dina am yoo xam ne nii yu positif la mais yi négatif moom moo ëpp parce que ñoom dañoo am seen link boo xam ni association des lutteurs nationales la ñu war a wax mais waru ko ne dañu wax association Gris Bordeaux wala association des VIP parce que ñoom seen link boobu ñu def booloo boobu ñu def di déggoo ñoom loolu ñoom rek la concerné amul lenn loo xam ne nii yokk na ko ci làmb au contraire que ni day rey sax làmb parce que da ngay gis Gris bi taxoon ak Eumeu seen tey benn nit di xeex ñoom ñaar nga gis leen ñuy reer mais amateur bi danaan kii nii tax ma doon rey sama bopp jaratu ko. mais lan la xanaa làmb du foo nag. bu jeexee jeex na mais daa am yoo xam daa am yoo xam ne nit ñi sax dafa ëpp. parce que bi ñuy jox combat dañ leen jël ñoom ku nekk ñu jox la 4 combat ba 5 combat te am na mbër yoo xam ne toog nañ 10 ans bëriwuñ. non loolu promoteur yi ñooñu noonu non mais seen link boobu rek la même link la dama ne la mbër yoo ñoom seen carrière ba ba muy jeex dootuñu chômeeti ñoom wóor na leen ni fii seen carrière di jeex dootuñu chômer mais mbër mu ndaw bi chaque instant du ko wóor ni man suba damay bëre wala ginnaaw suba tey ministre bi li mu def tegu ko fenn tey jii pour pour pour pour làmb pour làmb génn nit ñi am jàmm sax mooy bi Covid bi amee président fédération football bi moom moo ni football day ubbi pour làmb mën cee pour pourtant lépp mi ngi am est que ñoom génn nañ ci wax ministre bi bi mu saaga am mbëri ñoom ñoo génn dem dem ci vers ministre bi est-ce mbëri lañ fa teewal ministre bi bi mu defaatee sorti gis nga leneen ak leneen bugguma jël temps bi yëpp parce que daa am ay borom xel ñu ma dàq wax gën maa muus ñu nekk ci plateau yi mais ah, injustice affaire ministre affaire ministre boobu maa ngi yow am nañ ci ay débat yu bëri bëgg naa ci parce que mosuma ci déggu euh, Kona mu wax ci bëgg naa ci déglu itam euh, avis wu Kona mais man est-ce que yéen maîtriser ngeen vraiment li xew keroog ci rencontre bi entre le ministre euh, de la justice ak les lutteurs yi nga xamante ñoom ñooy lay VIP yu fa teewoon Kona. waaw bës waaw mooy maa may rebondir ci question boobu maa ngi lay wax tuuti ni la euh, ñun waxuñu Gris Bordeaux dafa fayir wala dara li ñu wax mooy <coughs> euh, fi ñu koy xaar fi ñu ko doon xaar parce que yow dara umpale woo sama diggante Gris Bordeaux dara umpalewul aussi sama sama diggante association des lutteurs en activité tey su demee ba taxaw ba si fii man boog du ma ne man la de mais joué naa si rôle bu bëree bari Gris Bordeaux tamit su demee ba nekk président du ma man la de mais joué bu bëree bëri kon donc ñun amuñu problème personnel avec qui que ce soit ay problème mu principe la am principe bi ñuy défendre suñ ko gisee nga nekk ci ñu nekk ci loolu muy principe yëpp bit bi mooy làmb dox but bu mooy intérêt général soo si nekkee ay gain lañ dinañ doxal ànd doxal soo demee ba gis ni yow mi li ngay def nii da ngay tatane wala li ngay def nii c'est pour ton crypto personnel dañ la fay bàyyi suñ la dinañ wax ak yow nag suñ waxee ak yow ba sonn nag déggaloo ñu ñun dañ la fay bàyyi donc kon Gris Bordeaux dajale ponkal yi ñu toog waxtaan loolu loolu projet waas ba ba mu taxawee ba tey ban taxawa ban projet ban loo xam ni xam nga yaa ñuy wax ñun lan lañ defagum te ñun bañ commencé sama dugul trois mois mais moom Gris Bordeaux ngir yàlla bës nee ma lii la fi def maanaam ñaata mbër ñoo nekk ci ay jafe-jafe ñaata mbër carte de membre sax Gris Bordeaux toog nañ deux ans presque man xanaa am lu ma jëlee foofu parce que toog nañ fal nañ ko un an pour assemblée générale boo xam ne war nañ ko introduire officiellement sax Gris Bordeaux mënu ko organiser donc carte de membre toog nañ lu mat un génnew ko boole koog nag dictature bu mat sëkk bureau association bi këram la toog këram la toog ne diw ak diw ak diw laa fal loolu c'est inadmissible donc ñun injustice yooyu moo ñu fa jëlee diw ak diw ak diw laa fal ma ne ko du nii soo xamul da ngay laaj association dafa war a am assemblée général assemblée moom mooy fal association même bu ñu ko deful sax par toog dañu war a topp règle yi mu am comité directeur ñu fal nombre de bureau impair ñu fal ci biir comité directeur bi ñu génnee fa bureau bi te du yow yaay tànn assemblée bi ñooy tànn mais malheureusement déggul loolu ba tey bureau boobu noonu dafa opaque bureau bureau bi ngay wax noonu amul parce que bureau boo xam ne nit ki moo toog këram ne diw ak diw laay àndal liggéey muut baa mottu man muut baa mottu boobu moo fa génnee. mais ce que du waxin bi itam Kona parce que tamit Gris Bordeaux bu fekkee tamit seen mag la. seen seen xarit la est-ce que du bi la parce que man seetaan naa sa benn vidéo TikTok boo xam man dama loolu après la. déggoo lu ma la wax. waaw mais est-ce que est-ce que. loolu que tamit. est-ce que tamit par exemple. Hmm. mais dama fi dañ ma fi wax dëgg. mais dafa am boo xam dañ ma koy waxee. gars yi dañuy ñëw waxtaan ma ah yow kat nga bëgg a doxalee mu am kenn ku ma gën a xam wàllum droit wàllum yenn ma ah sa contrat yi ni nga ko bëgg a lebalee lii warul demee nii warul amee nii ñëpp nous sommes des êtres humains ñu àndandoo nekk benn trouver solution mais est-ce que tamit parfois du monde làmb waxin bi day diis. parce que seen groupe boobu tamit ni ma fay dégg ay saaga bari na de kona non ñun dañoo waxuma ni ci yéen la jógee mais groupe boobu chaque jour ñu ne am na groupe boobu groupe bu doo Bordeaux jiite mm. li ma fay dégg ay saaga bari na de mm. chaque jour ma dégg ni am na mbër bu fa dugg saaga lu mu saaga ñi génnee ko wala benn mbër bu jege ministre mais aujourd'hui on a le droit ond dama koy dégg ci ay kàddoom on a le droit d'être sympathisant de Matar Ba tey ni man am naa droit am ay relation ak Matar Ba ku ci xuloo am naa ay droit am ay relation ak président Macky Sall. ku ci xuloo mais tey da ngay gis benn mbër bu ànd ak Matar ba ànd ak Macky Sall ñu saago ko ci groupe boobu. ne défaillant la ku ci xuloo non non est-ce que yooyu itam si jaadu. non non euh, euh, boobu nga gis ci sama sama TikTok loolu après la déggoo man génnee nañ ma teg nañ ma injuste pendant un kenn déggu ci benn télé wax. Gris Bordeaux man génnee na ci groupe boobu pendant un an kenn déggu ma fenn sax ma dénoncé ko damaa toog xam ni peut-être xelam dina ko yeddaat. di ci waxtaan ak rakkam rakkam yedd na ko ne ko am na message yoo xam ba tey maa ngi ak moom ci médiation pour lépp devient normal mais malheureusement il a refusé dem na ba ne am ngeen droit bu ngeen bëggee ngeen créer seen bureau association. ngeen def nii moom de te toog nañ un an bii bañ ko créé yàgg deg na def na deux ans ñuy soo a créé association ngir lépp di xaar médiation am parce que ñun xaajaloo bi amaluñu njariñ parce que ñun jàmm li ñuy xeex du suñu intérêt. ñun sax ñu amoon suñuy grand yu ñuy xeexal ñun ñu toog fële di entraîner di bëre ji moo ñu gënaloon ñun li ñuy def nii enrangé wuñ taxaw di dénoncer xam nga ni Sénégal mobile wax na ko léegi Sénégal bëgguñ ko ku wax dëgg xuloo te boo nekkee koo xamante ni peut-être tekkee goo fi lu bëree bari xam nga Sénégal nga tekk di wax yenn dëgg yi yow sa bopp ngay perte préjudice kon ñu li ñuy def nii ñu mais dañoo amul ku ñu ko defal dañoo amul ku ñu ko waxal dañoo amul ku ñu xee xeexal léegi ma ñëw nag ci li nga wax ne ndax nit amul droit mu Euh, mu mu mu mu mu Agogo ngi nii dañ barki démb dañ ko Gris Bordeaux da ko retiré loolu association groupe de whatsapp la boo xam ne titre foncier bi kii moo ko moom Gris Bordeaux moom moom titre foncier bi mooy dugal ku ko neex mooy génnee ku ko neex ku wax lu ko neex mu bàyyi la fa waxul lu ko neex mu génnee la ñaata nit ñoo fa nekkoon du ñun kese ñaata nit ñoo fa nekkoon dañ leen a génne wala ñu teg leen injustice yoo xam ne ñoom mun. ñàkk rek respecté règlement intérieur bi la. re waaye déggoo li ma la bi fu bureau amul lu fa réglement intérieur di amee. Hmm. déggoo li ma la xanaa yow. Hmm. yow euh, association dafa am commission de discipline. Hmm. su fekkee dangaa def loo war a def mais du président bi mooy jékki-jékki roo ci la dañ lay yóbbu commission de discipline mais nee naa la amul comité directeur déggoo lu ma la wax Gris Bordeaux moo toog këram ne diw ak diw ak diw ñi koy xalamal ci biir groupe bi ak ñi koy wax bu dee ici ñu ne arab ko laa mala amul man tey mun na fal bureau te boolewu ma ci tam yow Gris Bordeaux bureau bi mu fal man bokku ma ci man bokku ma ci parce que xam lu tax bokkuma ci yow tey bu ñu la taxawoon tey ak yow nu ma meloon ci xeex bi benn noyau boo xamante ni yow Gris Bordeaux bu demee ba dugg ci xeex bi Gris kii na ko man maa tax Gris Bordeaux bureau bi mu def këram man bokk ma ci wallahi man ko même bureau bi su ma ci bokkoon sax heureusement ba dimbali nga ma ba ma ci ndax bu ma ci bokkoon man du ma doxal ndax biro bi normalul ndax biro association kenn du amoo droit yow yow di élire ay nit lii lii yi nii mm-hmm. maanaam lii kenn ko élire dañ la maanaam da ngay dem assemblée ñu def comité directeur nombre d'impairs ñu génnee ci quinze wala nangami personne mu doon bureau bi te nit ñi ñoo koy fal du yow yaa koy def mu ne ma man du man maa koy wax doo dem ba indil leen ay statut ak règlement intérieur association wàcce ko ci panel bi. waaw mais léegi. Maodo Maodo xam ma wax dafa ne ma dama indi kayit yi bu dee kayit yi li nga wax loolu la wax ma ànd ak yow ma dem indil ko kayit yi Maodo ne wax dëgg yàlla nañ ko jaarale ci yoon lii du yoon. mais après dañu dem ba mënuñu ma digérer. mu génnee ma borom génn mu ngi naaj di wax jàmm génne nañ ma un an ak lu teg un an six mois waxuma dara damaa toog sama ruq xam nga la moo ma wax loo bi ma gisee ministre bi saagañu ñoom moom mu génn ne dañ koy porter plainte ma tàccu kii ne ma ah gars yi ne audience dañuy ut ma ne ko noo xëy na dinañ dañ dëggal seen bopp ñu toog tuuti ministre Macky Sall recevoir leen mais Gris Bordeaux am personne moom moo génnaat ne. mbër yi bu ci kenn waxati te na ëllëgee lu xew na na ngeen teey moom boppam la war a waxal moo war a teey ndax bi mbir yi amee moom moo jëkk def déclaration na dañ xaaral xaaral ma daaneel sympathisant asem euh, ci affaire boobu mu relancer rek y'avait pas Gris Bordeaux y'avait Modou Lô y'avait Balla Gaye mais gi buzz buzz man sax dama waxu Gris Bordeaux xëy na da ngeen ma ci laaj dañuy tëj page bi léegi léegi dama bëgg ñu tëj ko quoi parce que man li ma ci waroon wax yëpp wax naa ko ci li ñuy li ci waroon comprendre comprendre nee naa combat de principe la te yow bu fekkee yàlla moo tax nga dëgg rek mooy tax association bi dafa opp ak amul dafa nul parce que association boo xam nit ki moo toog këram ne diw ak diw laa fal loolu déjà du association loolu propriété privée la déjà buzz il faut que se dise les choses telles qu'elles sont munoo yor association loo xam ne mbooloo la da nga ko donn woo ko sa ndey donn woo ko sa baay Khadim Gadiaga moo démissionné am ñu ma gisoon am ñeneen ñu postulé woon man leen man je ne suis pas un bro pro mon profil pour l'association je prône pour Gris Bordeaux wallahi ma main sur le Saint Coran ma ne Gris Bordeaux il a bon profil te xeeb bi ñu doon jéem a xeeb moom su nekkee président munoo compter juróomi lutteurs yu mag te boo ko ci boole kon moom CNG dina ja wax ak moom far force parce que Khadim Gadiaga da daan am problème yooyu ñu naan ko il est inactif ay gëj naa bëre léegi politicien la moom moom duñ wax ak moom mais giri suñ ko falee profil am war na mën a yóbbu association fu nekk kon ñun vision boobu lañ am nekkul sa personne mais ba mu doxalee doxalaat tegul ci yoon fal bureau xaaral fal bureau tegeewu ko ci yoon ñu ne ko nag gaayan ressaisis-toi hmm. mobile mii tey su bëggoon def lu dul yoon su ma ko ko waxul ku ko koy wax je suis mieux placé pour mobile def lu dul yoon ma ne ko mobile du bu doon sax dama toog ci penc mi génn wax ko fa mais dama ko wax fa ma ko war a waxee ñu ne ma non da ngay mën a noppi ba da ngay mën a toog noppi baa nga dem. mais pour tëj côté boobu peut-être. man euh, li ma seetlu mooy euh, affaire ministère de la justice bi da ngeen ci xuusee noo xamante ne man du écho yooyu laa ci am. léegi man ñun xaaral. waaw affaire ministre de la justice dama ne la. ba mu waxee dafa dem France 24 mu ne mbër yi ñoom ñoo mer parce que dañ leen a privé de leur sport ba pandémie bi ñëwee ba tey dañ leen a tere ñu bëre ñoom ñoo mer ñoom ñoo doon manifester te loolu tel ni pas le cas yow xam nga ni loolu amul. man xam naa ni loolu amul. opinion bi nationale yëpp xam nañ ni loolu même international sax xam nañ ni loolu amul donc dafa am une révolution bu am ay nit doon génn ku gàmm bu amee race dem day am ay nit doon manifester pacifiquement ay nit rax ci def ay acte de vandalisme te la foule est folle on ne peut pas contrôler moo tax ñu naan fitna mu ngi nelaw yàlla rëbb na ki kay yee tey manifestation bu amee dina ñoo xam ne ci loolu lañ yàkkamte ci profité di def naka sudul noonu moo tax képp kuy jiite dangay ñaan stabilité ñaan dal ci réew mi ndax yëngu-yëngu bu amee rek ñu ñaawteef yëpp dinañ ci rax sa kan mooy responsable nag ki nga ñi nga xam ñooy autorités yi seetaan ba yëngu-yëngu yooyu am kon donc bu askan wi dalee népp nañuy def ay actes yoo xam dina tax askan wi gën a gën a dal euh, jeunesse bi gën a dal beneen bi mooy li nga wax ni ministre de la justice mais ministre de la justice moom moo wax bi mu waxee Gris Bordeaux génn mooy sunuñ njiit moom moo war a wax ne dañ ko porte plainte mais après quelque jour après ñu jékki-jékki gis ko moom mu dem fa ànd ak ñi mu ñi mu war a àndal les cinq major sax la leen ministre bi tuddee ñu génn ci puntu bureau ministre bi moom moo def déclaration moom te man damaa am ay écho damaa xam ñi dox looloo yëpp ni nga ci amee écho ñu noon lañ ko amee wala sax yu ko raw bañ fa demee lan lañ fa jox paas xam nañ ko ba ci communicateur traditionnel ñaar ña fa demoon dañ leen a jox paas. ku nekk ñett sax ñoom euh, champion yi ñaar la leen dafa am benn dafa millions bu muy dégg gars yi naan loolu. non dix millions dama ciy ñëw dix millions dama ciy ñëw. naa la ci wax dëgg lu ministère des moo leen jox dix millions yi man ngay wax. mais ñoom ñaar la leen jox paas. mën a waaxu xam réew mi ko gën. Mhm. bës ñun li ñu wax dañ koo xam xëy na peut du lépp ngay mën a wax parce que ay déballage gis nga base bës ñun li buñ ko waxee sax ñun la ñuy sikk. non mais xam nga boo nee paas. xaaral ma daaneel. waaw xaaral ma daaneel dama ne la. on n'est pas là pour faire la procès de qui que ce soit wala de juger kenn on n'est pas là pour juger qui que ce soit dañu ñëw ci wax dëgg. ministère des Sports ministère de la justice bi mu waxee li muy wax Malick Sall li gënoon a nekk acte responsable acte fulla ñu xam ne ñii ay nit yu organisé lañ ay nit yu autonome lañ mooy association bu normal la mooy que ministre bi ci boppam moom moo waroon def déclaration jéggalu nation maanaam waru sax jéggalu mbari kese dafa war a jéggalu seen jeunesse bi yëpp parce que jeunesse bi ñoo génn wax li leen naqari. wane seen bopp ci mbedd mi. jeunesse bi ñoo wane seen bopp ci mbedd mi te jeunesse bi li tax ñu wane seen bopp ci mbedd mi mooy que autorité yi ñoo leen dégluwul ñu profité ci manifestation yi xew wanaale seen raada bol parce que Macky Sall moo toog pla moo toog en décembre message de la nation mu ne su ngeen takkee ay morceaux yu xonk man duma ko gis je ne le vois pas. su ngeen takkee morceau yu xonk man gisuma ko da ngeen sonal seen bopp kon il a fait un appel à la violence. te ab déglu ma rek déglu ma ma daaneel. loolu bëgg nga dugg ci làmb ci moom laa lay wax dama siy dugg buzz. <laughs> ñun kenn duñu tënk. ñun boo ñu invité. di bàyyi ñu rek ñu exprimer wu. après nag yow yaay xool noonu noo loo ci d'accord nga wax ñu ñu leeralal la ko. donc bi jeunesse bi jógee xeex yàq toj moom moo taxawaat ne dégg naa leen kon donc appel à la violence bi foofu la départ parce que tey takk morceau bu xonk c'était pacifique Abdoulaye Wade moo ko fi indiwoon bu ngeen yàq bu ngeen meree bu leen toj bu leen yàq li ngeen yàq yéen a ko moom. moo nga. léegi nag gaawal loolu quoi léegi kon mu taxawee dénoncé loolu. ñu nangul ko ko moom moo taxawaat ne mbëri noppi leen te yii bu amatee dee leen ci teey ñu toog tuuti dégg daas bu ministère des sports. jox na leen dix millions. c'est une récompense. te foofu noonu lañ leen ko diggee ñun xam nañ. c'est une récompense. dañ leen koo rek dañ leen. Ah, maanaam da nga lié. waaw rencontre ak ministre de la justice. Oh, oh, c'est la rencontre ak dix ministère des sports. c'est le gouvernement. c'est le loolu loolu loolu il faut ñu ma daaneel c'est le gouvernement. Hmm. Matar Ba moom mooy ministère des sports. jamono bi ñu tuumaalee mbër yi. ñoom ñoo sol seen daal dem fa. nit bu autorité nit bu la tooñee gis nga ñoom ñooñu Malick Sall gënu leen a doon autorité ñoom ñoo xeeb seen cër damaa bëgg nga waxam ma gis nga ñun la l' état c' la population c' est nous l' état trois état mois est toi état bi tey doole bu mën a am suñu doole la ñuy xeexee ñun ñoo leen teg ci condition yu baax ngir ñu mën a doxal ñu suñu yónnante kon ñoom bu ñu taxawee def une intox nit day juum ministre bi nangul nañ ko dafa juum mais na taxaw si l'opinion national ne man damaa juum je retire mes propos wala ñun mérité wuñ ñun nit waxal ñu lu dul doonu retirer ay propos am suñuy njiit ñoom ndax mérité wuñ ñu ñun ñu wax lu dul noonu taxaw ne je m'excuse pourtant George Floyd bi ko bi ko policiers yi violence policière bi am mais homme de tenue yi dañoo def agenu jéggalu askan wi loolu mooy démocratie loolu mooy respecter sa askan mais suñu autorité tey rëy nañu sax suñu defee une erreur de taxaw wax ak askan wi ne ñoo ngi jéggalu je retire mes pour am am na solo léegi retiré wul propos yi. Mm. Gris Bordeaux ne bu ci kenn waxati ñu ne ko nag arrête. li ngeen wax ci seen biir bureau boobu waxoo ñu ko li tax nga jékki-jékki yow mi waroon a porter plainte xam nga ko dem ba ne nawee porter nit ondu la fu dégg naa yow mi taxaw ne ñu ci doon wax nañ tëj seen làmmiñ te bu dara xewatee sax na ngeen noppi il est kii pour nous donner des ordres looloo tax nag ma def gis nga nee naa la un an et demi lañ ma génnee foofu waxuma looloo tax nag ma def déclaration boobu ndax jour boobu damaa mer te tàng naa b ma génnee nag ci laa wax te après lañ dégg ni Matar ba seen jox na leen 10 millions 10 millions yooyu xaw naa toj seen groupe ba léegi nii kii million yi kenn xamul fu mu jaar. léegi ñun dañoo nekkul ay nit yu ñuy ger. Hmm. gis nga ñun nañ nañ ñu def ay projet gis nga lan la man bu ma doon bu ma doon président des lutteurs man soxloo ma benn benn politicien di yëkkati dërëm di ma ko jox parce que bu ñu la joxee xaalis dafa am lu muy symboliser te ñu lay jox du doy ñëpp ñu nga xam ne yaa leen war a jiite day nekk problème ci yow c'est pas intelligent ñu yëkkati benn dix millions xaaral nga toll ni kuréel boo xam ne yaa ngi jiitale ay plus de huit mille et quelques ah ñu jox la dix millions nga di ko jël loolu c'est pas intelligent projet yaa ngi fi déglu ma rek bës. xaaral ma daaneel xaaral ma daaneel xaaral ma daaneel. waaw xaaral ma daaneel man Balla Gaye 2 moo ma wax ci gémmiñu ñu may seetaan. moom kase mbir mu mag bi nga xam ne woo na ma bi problème bi amee ba léegi parce que boo ko waxulee naa fekk nga mhm. moom kase moo jël téléphone am ma ni ma Onde lan mooy seen problème mhm. bi ma ko waxee daf ni ma 10 millions yooyu bu ma ko joxoon man du ko jël dëgg kon Balla Gaye moom ci boppam ñun dañoo waroon a dem seeti ko ndax xeex bii ñuy xeex nii moom d'accordu ci injustice bi moom d'accordu ci dëgg la foofu laa doon fàttali ba pare mhm. Gris Bordeaux nee na dinañu tëj wax ko gars yi waaw millions yi si laa nekk maanaam tey projet maanaam làmb li ko mën a suqali du ngay dem si autorité yi ñu lay jox ay dix millions loolu c'est des miettes tey on a des projet yaa neen de. waaw dama ne la dama déglu rek sunu xaalis la. Hmm. Matar bu follee du may kenn dix millions bës. Hmm. boo bu amee ñaari junni yoo may mayal ku la neex boo bëggee dégg-dëgg kaay ma wax la ko nañ waxtaan ñoo bokk réew mi. mais dama bëgg rek xam nga waxtaan bi bu ñu ko fi teg mën nañ fi def deux heures temps te pour nit ñi am ci njëriñ la moo tax ñu toog fii lii préalable la pour waxtaan tourner benn page ñëw ci page yu seen ay projet après ñëw toog tey am ngeen yi ngeen adressé ci beneen association bi yoon na ñu dalal ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci beneen association bi ñoom ñu indi ay leeral bu laajee débat ñu débat bu laajee médiation ñu médiation waaw waaw waaw teel mani beneen association amu fi loolu c'est la forme xam nga sur la mais au fond association amu mais moom laa la wax xam nga mm-hmm. tey loolu mooy sur la forme mm-hmm. mais dama ne la njabootu làmb benn la man tey comme li ma la wax man am naa yeneen écho par exemple ci affaire euh, ministère de la justice boobu noonu te lu tax may wax. léegi wax ñu ko. waa moom laa la wax mooy ministère de la justice tey mbir dem nañu man laajal onde mii bu ma ko jëlee live lan laa ko wax mbëri bu ñu demee Gris Bordeaux dafa génn communiqué ab mbir yi ku ci nekk communiqué face au face à la caméra ne ministre bi kat moo ñu woolu jéggalu may leen foofu ñoom dañ def erreur bu mag. erreur bu mag bu ñu def mooy ñu suñu ay kàddu ànduñu Gris Bordeaux ànduñu ak Onde le Fou ànduñu ak Mobile ànduñu ak Kona suñu gis-gis mhm. la ñuy am di ko wax mun na bekk sax gis-gis boo xam dañ ci juum mais dañ ne mbër yi dañu def erreur bu mag mhm. ban mooy erreur bu mag bi nga xamante ne moom lañ def ña fa demoon waaw ban mooy erreur bu mag mhm. Gris Bordeaux ak ñooñu ñëpp mooy waruñu woon communiquer te ministre bi nga xamante ne moom moo juumoo ñëwul toog taxaw communiqué mais bu fekkee ñoom dañuy wax sax ministre bañ a wax mais ministre bi taxaw fekkee ni que ñoom ñuy wax ni ministre bi daf ñu woo jéggalu mais tey ministre bi bu wëlbatiku dama def déclaration. Fuuta waaw Fuuta man déclaration boobu man gëw ma ko. lu tax gëw ma ko. déglu nga ko waaye. déglu naa ko bu baax loo koo gëmul ministre bi. waaw maa ngi ñëw. bu ma ne koo gëmul laa. ministre bi laa gëmul. lu tax gëmuma ministre bi bu mu defee déclaration taxaw. man automatiquement dama ne mi mbër yi kat war nañu xoolaat seen bopp ñii ak li ñu doon wax yëpp ministre bi nii la mujjee ma wëlbatiku jël sama téléphone ñu fekkee wa loolu yëpp te man Modou Lo jox naa ko cër Balla Gaye jox naa ko cër Gris Bordeaux jox naa ko cër ñoom Bécaye meeg yëpp jox naa échangé naa quatre vingt pour cent ci ñooñu ñu ne ma loolu ministre lu mu wax dara amu fa demewul noonu benn mbër waxuñ ko di leen la gunge ci ay ci ay meeting donc man tey mbër yi laa gëm wax dëgg yàlla ministre bi lu mu wax. du waxu mbëri yi nangul la li nga wax li ma lay wax rek mooy moo tax ñu war a def très attention. avec les politiciens. xam nga loolu laa la nekkoon di la wax ma ne la les politiciens ils divisent pour mieux régner isolés pour écraser nañu nekk ci kanamu askan wi nañu xaaral bës. ma daanaka dama d'accord ak yow Kona parfaitement non dama dama laa nangul li nga wax mais man tey du lu ma neex parce que association mun nañ bokk benn association ba pare am ay divergence waaw même ma man dama gëm ni dama gëm ni seen association bi. pour mu gën a am doole doole bi day nekk ci association des lutteurs du Sénégal. waa euh, sànq mobile mii bu mu dugg see. Cobra la fekk muy live ak Lamine. lan la ko Cobra wax. Cobra da ko ne ah man xaajaloo bi en neexuma loolu loolu ñu ko wax. bu la mais lu tax ñu tuddee ko xaajaloo waxu la mobile massa ci sa combat bi passé waxu la ci leneen lu la ñu wax mooy tey ñaari association. lan moo tax mu tudd xaajaloo mais kon naa li ma la bëgg a laaj. te question boobu boo waxee pare mobile wax est-ce que tey pour ay nit bu ñu doxee médiation pour boole leen tey ngeen nekkaat benn mu nekk benn association ngeen def règlement intérieur def yëpp est que tey pare ngeen. Euh, li ma lay mën a euh, nangul mooy association déjà amu fi Gris Bordeaux lii mu nekk nii du association te amul ku ma mën a indil texte wala règlement wala statut buy dëggal loolu association dafay une assemblée générale la majorité ña fa nga xam ne bokk nañ ci association bi ñu ñëw toog. ñu fal comité directeur nombre impair ñu fal suñu bureau am réglement intérieur mu am euh, lépp nga xam ne tey nit bu fóotee sax commission de discipline lañ koy yóbbu mobile dafa la wax benn affaire léegi à quoi lan mooy problème bi bañ association yu bëri am ci promoteurs yi te promoteurs yi matuñu dix matuñu matuñu cent boog mbër yi mat huit mille et quelques ñu ne léegi benn association rek moo war am ba pare yaa ngi wax sàng ba tey naa association des lutteurs nationales xaw ma na association des lutteurs en activité la tudd récépissé bi loolu moo ci nekk. Gris Bordeaux association des lutteurs en activité lañ ko fal. da nga may déglu dañ ko proposé ci biir panel bi mu war a organiser une assemblée bureau sortant bi ñoo waroon organiser une assemblée mooy Khadim Gadiaga de seen rapport moral et financier ñu proposer ki nga xamante mooy Gris Bordeaux ñu fal ko légitimement loolu amut. dañoo toog ci panel bi ne ah bu ñu sañoon capitaine PK Père Tafa Gueye ñun ñi ñoo ne bu ñu sañoon mu doon ñu doon bañ ñu jël leen ci ak ñoom ñu doon wax. konaa la ñu leen consensus la daal ñu ne léegi dañuy bàyyi ba lan moo lan moo doon xew am na lu doon xew benn manifestation ñu ne dañuy bàyyi ba jàll ñu organiser ko woo mbër yëpp ñu teew woo presse bi su ko defee ñu introniser Gris Bordeaux mu officiel ñu fal bureau ni ko règlement waxee moom ñu ko war a organiser ko defuñu ko defuñu ko ba mat un an ñun ñi gisee ñu ak Gris Bordeaux am ak ko indi parce que dañ ko topp gaynde kaay kaay woote ñu liggéey kaay woote euh, ñu introniser la maanaam ñu fal la légitimement kaay kaay kaay muy joxe ay date bi la médiation muy waaw médiation bi nag mooy ñun bañuñu ko su wootee assemblée général ñu teg bureau nga xam ne moom du nekk moom mooy nekk buur di mi ñu waaw moom laa la déedéet non ondu ondu il faut nit ñi il faut nit ñi non il faut nit ñi nga nangul leen xaaral médiation Sénégal lañ ko fekk doo tëj buntu yëpp yàlla bu leen dem ñun nañ leen tegal suñuy principe mooy que ñun amuñu problème ak Gris Bordeaux suñ tegee lépp ci yoon suñ tegee lépp ci yoon ñun ñëpp dañ ciy xaj mais injustice duñ ñu ko imposer ba pare ñu di fa toog ba pare toog nañ at ak lu teg. di xaar médiation boobu am ñi ko war a dox dox nañ ci bam booy bam maar Tafa Gueye lu mu munul capitaine PK munu ko Maodo Giri 2 munu ko keneen ku ko jéem ah. ku ne ku ne ku ne dox na donc kon nag ñun ba ñu demee ba gis ni ñii kat dañ ñoo xeeb ñoom bëgguñu sax nawlonte ak ñun ñu créer suñu association te nag jàkkaarloo wuñoo Gris Bordeaux dañoo jàkkaarloog ay jafe-jafe làmb gis nga ñun dañoo ay programme de. nag seen ëpp lu ëpp ci seen waxtaan. lu ëpp quoi qu'on puisse dire que mu nekk buzz lañ ko laaj wala keneen lañ ko laaj mais lu ëpp ci seen ay waxtaan seen ay ñaxtu Gris mais du yaa ngi toog nii boobu ba tey yow loolu nga ñuy laaj non no non dafal nànk man fii balaa ma balaa tudd Gris Bordeaux yéen a fi ñëkk tudd Gris Bordeaux moom mooy président des lutteurs ah waaw no mais lu ëpp ci seen ay ñaxtu moom Gris Bordeaux la moom moo waral sunu mer bi ñaar yu mën a am mooy médiation association des lutteurs yëpp nekk benn mu nekk benn ngeen def seen règlement intérieur ak seen comité directeur ak lépp am seen ay kayit normal wa ilaa ngeen dem ñoom ñu dem ku ci nekk liggéey ci luy jëmal làmb kanam mobile wax la làmb moo ñu soxal ñun man loolu d'accord naa ci xam nga lan moo tax d'accorduma ci ñun boobu ba léegi ñu ngi génn di alerte ak di dénoncer kenn faale wuñu au contraire que ni dañoo réew lañ ñuy dégg ak di jot ay menaces ah, nañ dañuy tëj te tey ma wax la lenn tey ma wax la lenn am na ñetti associa ñett ñaari association yu judduwaat tudd association des jeunes lutteurs am bu juddu Mbàkke muy association des jeunes lutteurs bu Mbàkke am boo xam ne nii judduwaat na bu nekk kees am na boo xam ne mi ngi waaj a juddu ndar barki Seyd associa mais ah, danga ngaa mës a dégg ah, da ngaa mës dégg feneen non parce que ñoom ah, waa mais mais xama nga xam xam nga nekk Mbàkke njaareem ñooñu boolewuñu leen ci làmb te ci làmb lañ bokk mbëri nekk kees boolewuñu leen ci làmb te ci làmb lañ bokk ndax am na booyu nekk kees yoo xam ne fi mu toll nii CNG bu kees da leen a reje nangu seen licence ci booyi nee nañ ma ci àll bi bu ñuy bëre bëre dóor barki alxuraan bu fekkee ni làmb yi nekkul làmb ju mag xorom lañ leen di tegal def ci ndox. buñ la dóoree bu sa RKTP teppeekoo ci ngay dem sotti ci ndox. am na am bëri yoo xam ne nii dañuy nangu non déglu ma rek ma wax la ah. li mu wax ni kii bi man loolu laa dul nangu. parce que ni ko mobile waxee sànq la ku baax ku ne bëri turandoo nit ñi bu ñooñu bu ñu gisuloon ni ñun ñu ci voie bi ak di xeex li ñee di xeex kon du ñu ñëw ci ñun. ñoom bañ leen waxee ne ay ca kaa leen defar dañoo bañoon. ñun tey bi ñu tolloo ci ñuy defar muy baax bu ñu woowee dañuy bañ. man ondu la Fou dew ma képp ku mënti tamit dew ma te fi ma taxaw. laay taxaw dictature la mais am problème. waaw comme ni ko gars yi waxee rek amaana nag tamit euh, mat amaat lu ma leeral lu ndaw rek mooy. il faut que am lu ñuy comprendre. ni nit ki mel ak reewante wala leneen ak leneen. kon yàlla noonu la ko bindee noonu lay waxee. wax jee dëgër mais fi mu nii lu fi métti bu amoon bu jooy de am mooy njëkk jooy. amul lu muy nit wala dara noonu la ko yàlla bindee on la fu noonu la ko yàlla bindee mais c'est juste xamala moo am solo ci wax ji li muy dëgër dëgër dëgër dëgër kii li muy wax lan la te li muy wax xam nga ne amul lu ci nit di teggi ne mun naa cee teg lii lu fa ne la. ah loolu ci seen xalaat yéen. Ah, parce que yéen fi toog di wax. association beneen bi newu fi waaw baal ma ma ko. waaw léegi da nga naan suñu ndax bi muy wax ko dama laa nangul bu baax. dama laa nangul yenn points yi yenn points yi mais pas ah, tous les points. non non mais munoo munoo bañ munoo bañ lépp. li topp dégg naa la sax nga posé question mooy gars yi. ngir ni mu def ba réussir dajale diw dajale diw gis nga buzz buzz dajale ñi pare ba pare jafewul il a deux ans trois ans ci ginnaaw bu ñu la waxoon ne mobile de Kona ay Onde le Fou jeunes lutteurs yi dañuy toog dinañ mës a toog dajaloo di bokk benn gis-gis di waxandoo da nga naan mënul nekk parce que bu ñu la mësaan wax mbër mu ndaw da nga naan dof la parce que bu ñu mësaan rombante day téen téye ma téen téye sama arñe yaa ngi gis leneen ak leneen mais tey ñun yàgg nañoo gis bëri mag yi bëree ba pare seetante tafaagay bëree na fi taay yóbbu ko la xaw ma loolu bettul nit ñi ci mbëri yi nga xamante ne nii seen bamba maase na bettu la bettu la yéen bettu lañ yéen. mais bettu gars yi kontaan nañ ci torop waaw mais bettu la. mbëri seen bamba maase ba pare ñoo bokk toog di waxtaan. non loolu moom geste bu Sénégal yëpp naw la boo demee ci commentaire yi yow mobile da ngay xool commentaire yi tamit. mais loolu rafet na la wax de mais dañ la bettu bettu tax yéen bu ngeen ñu invité duñ toog ngeen nañu association jeune la projet yi lii ak lii ak lii ay xale lañ yu ndaw fayekuñ 100 millions fayekuñ 200 millions liggéey milliards jafewuñu dañu koy wax dañ naan ñun association jeune lutteur bu nekkoon cent personnes deux ans dañuy tëgg làmb deux ans bu ñu neexee cent personnes kese kese kese chaque weer bu dee ku ne cinq mille yi deux ans yi dañuy téye ah, douze mooy kon en tant que président des lutteurs tey yéen ngi ci projet ñu ngi ci ak yeneen ak yeneen yu ko gën a kawe mais fu mu toll nii ñaata membre ngeen am mobile yoo xamante wala ndekk goo leen dafa goo leen carte de membre yi. a ngi soo commencé yëpp pare na mais instant yi waxtaan yeeg yooyu. waaw ah. ngi waxtaan ba pare ñu ngi porte à yi di seet yenn équipe di ah. élargir affaire yooyu ba pare. nekk ci ay projets yoo xam dañ nekk ci liggéey mu xaw a métti parce que projet yi dafa métti. Hmm. kon nii bu paree ba APEX lay ñibbi. Hmm. on fu ba ginnaaw raay te imaginer ñaat écurie nekk Sénégal te écurie bu nekk war nañ faa teg suñu tànk kuréelu làmb bu nekk war nañoo dem toog waxtaan ak yow ñoom tey ñun li ñu gën a soxla ci ku ñu invité mooy boo ñu invité nga ñuy laaj association bu jotee ñi médiation nañ médiation luñ si hmm. réussite ñu xam ne lii en général hmm? ñëpp bëgg booloo bi ciy dolli mooy hmm. euh, bi booy ñaa amee erreur ci sos ñu doon wax waxu prison ak léegi làmb dañoo jóg sol seen dàll mbagum géwél yi jóg sol seen dàll suñu ñoom papa bekkaay mbay ñoom papa mbay Mbaye nañu jóg ci kaawu bébé Saloum. waaw démb rek maa ngi dégg ñu koy wax. nañu jóg ci kaawu bébé Saloum. Mm. ndax borom tur turóom a koy wallu te bu ñu xefee ba turóom fay ci làmb dina kii. te fi mu ne nii sonn na feebar na soxla na ku ko taxaw. dégg naa mu ngi pavillon spécial. voilà tey ñun si yooyu lañ bëgg ku ciy laaj nan lañ ciy def. ñu ngi sol suñu dàll nag nekk suñuy jéego pour xool ñun yan pro ñun tamit lan ak lan ak lan ak lan. mais moom problème Bébé Saloum actuellement. Hmm. tey problème yoon la dañ ko àtteegul wala dañ ko àttee ba pare mu war a tëdd lan mooy problème bi. non yaa xam ne àtteeguñ ko. àtteeguñ ah. ko parce que tey maanaam tey bës gi nga bu doon dañ ci dox comme problème booy ñaan nañ ci doxee woon. Hmm. question bi du doon sa question. parce que da ngay xam fi mu toll lépp. est-ce tey du nekk seen premier combat tey. ñun suñuy combat dafa bari. Hmm. suñu premier combat nag. bii moom lu kaaw bébé Saloum dafa métti trop. mais il faut que ñu wax dëgg. Hmm. ak bébé Diène mais suñu premier combat. mooy ni làmb àndee na dañuy booy boycotté Kona mi bokk. Hmm. dañoo nar a fexee ba bu saison bi démarré Kona bokk ci mbër yi bëri. waaw loolu moom dafa jaar loolu mooy suñu combat. ñu ngi rafetluwaat émission bi bu baax donc li mobile wax moom ci gars yi nga xam ne ñoo nekkuñu nag euh, ku tooñ buñ ko teg ci yoon waxuñu loolu. mais nag am nañ droit. ñaan solidarité. parce que réew dëgg lañu nekk réewu yoon waaye nag am na ci ñoo xamante ni bu ñu defee lu ñu warul def dinañ am ay privilège kon nag ñu ngi ñaan yàlla privilège yooyu suñu mbokk mbër yooyu ñu bénéficier wu ci mooy ku dem ba feebar sax wax dëgg yàlla axlu làmb moom nit dóor na fi sax alkaati nekk ci làmb jaru may lim turam mm-hmm. dañ koo taxaw nañu taxawoonte kenn ku si nekk yaa ngi taxaw sa morom ñi bokk ñi bokk teen ñoo war a loxo ay goj ñun nag duñu ay di ñu teg ay injustice ba pare wëlbatiku di ñu woo ñu xiif ñu ñuy utiliser loolu duñ ko nangu te nag ñu ngi naan ay mbëri ay nervi lañ gis nga ñun duñu ay nervi te ñaanuñoo yàlla doon ay nervi ay nit yu normal lañ ay nit yu correct lañ suñu association bi ñu ngi sensibiliser jeunesse bi képp ku ci nekk bu ñu la jëlee sécurité demal nga liggéey waaye buñ la nee kaay nga dem dóori nit wala nga dem toji palaasu nit wala nga dem ba nga dem dóor askan wi ñun ànduñu ak yow te soo ko ci defee loo ci góobee na ko gar. Onde le Fou lan ngay lan ngay tàggatoo parce que man wax dëgg yàlla euh, sama waay nga sama xarit nga tey débat bii nii. débat bi ñu débat bu ñu initié nii. non ah. baal na sama doomu ndey la ah, sama doomu ndey la sama waay la affaire yi moom nice na quoi ah. parce que lii nii. moom nga war a def yow tey lii nga def nii. waaw kenn du la ci remercier parce que loo war a def la. waaw tuddul Dakar TV tuddul Len TV Buzz TV la tudd. comme Lit TV la tudd. kon tuddul Buzz TV. beneen bi mooy dama koy waxaat rek. pour ñu dem. jubboog mbër yu mag yi amuñoo ak ñoom problème mais pour ñu bokk ak ñoom association man d'accord ma.